door ak bis bu màgg mu di bis bi nga xam ne ci la Cheikh euh, Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum gane àdduna ci atum 1925 euh, ci le 29 décembre doon tey bis boo xam ne ñu ngi koy féete ca Tiwaawoon ngir wàcc ci ay kamil fàttaliku ndem ci yàlla Serigne seex Tidiane Sy Al Maktoum yàlla dal di taaf leen ci barkeem yokk ay leeram. ñu wax ci génnuk àdduna ak nit boo xam ne ku doon liggéey réewam la di Sénégal waaye itam ñu gën ko xam fi nga xam ne moom moo di membre taxawu Dakar président moom moom nga xam ne moo doon wuyoo ci turu Idrissa Diallo daal dina ñuy fasul génnuk àdduna démb ci altine ji ginnaaw bu ko jàngoroy coronavirus dalee woon ma nga génnee àdduna fa nga xam ne moom moo di ci hôpital Fann ñu des ci génnuk àdduna ak sa jàlloo nekkoon nit boo xam ne gënoon nañu ko ràññee ci ki nga xam ne moom moo di ancien maire bu Ndakaaru di xalifa Khalifa Babacar Sall ba waral mu daal di génn def ay témoignage ci compagnon boobu nga xam ne moo génn àdduna di Idrissa Diallo jikko yum xamoon ci moom waaye itam lim sekk sekkoon nag moom lépp du lu baax tax na nee na ñàkk na moom kenn ñàkkul moom moo ñàkk tey itam nit bu doon jariñ réewum di Sénégal dem na ñu dem ca luga ak ñawteef bi nga xam ne moom la R Gomes def ñu gën ko xam ci tonton tubaab ginnaaw bu ñu jàppee ne da doon sàkku ay xale taalibe tax na ñu daal di koy teg loxo moom R Gomes mu ci tuuram tonton tubaab lañu koy toppee mu di pédophilie ak acte contre nature ginnaaw bu ñu ko joxe woon ay taalibe yoo xam ne ma nga leen yoroon fa nga xam ne moom moo di ca diwaanu Louga ak ñëwam ci Sénégal nag li tax mu daal di fi ñëw bokkoon na ci jàpp ne taalibe réew mi di Sénégal ne ci ay jafe-jafe mi ngi ñëwoon Sénégal ci atum 2015 waaye nag fa nga xam ne moo di Louga fa la nekkoon euh, nekkoon li nga xam ne moo moo di gérant ONG fii ci biir réewum Sénégal li mu gënoon favoriser moo di xale yi nekk ab animateur éducateur euh, ci li nga xam ne moom moo di formation bi mu jot a def spécialiste spécialisé wu ci li nga xam ne moom moo di xale yi ba tax na daal nañu koy teg loxo ak lañ koy toppee lépp ngir ñu mën a càmbar ay mbiram ñu àddu wax ci nun ko xam ci EGBS ak xaalis bu takk ba nga xam ne daal dinañu ko fay nag jël mu toll ci 419 millions loolu mu ngi amee fa nga xam ne moom moo di Diourbel ka nga xam ne euh, moom la ñu jàpp ne moom la moo ko def di mise en cause ba jot nañ koo teg loxo ginnaaw bu ñu jaaralee xaalis boobule ci yëpp Sénégal mbuxu maam ci biir ak lim bu takk ba nga xam ne jël na ko jamono ji mu ngi ci loxoy takk der yi mi ngi euh, sous garde à ngir nag ñu mën a xam ana yan ñoo xaalis bu takk boobu yépp ca Société Générale lu yees daal dinay fës ci jouet alcoolisé yi nga xam ne moom la ñu doon jaay ci réewum Sénégal ak juróom beneen nit yi nga xam ne tegoon nañu leen ci loxo ginnaaw bu ñuy jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di juge yi wax nañ fi boobu les jouets jaar yëpp ba soog a agsi ci réewum Sénégal jaar na Côte d'Ivoire soog a dugg ci réew mi di Sénégal te itam bu ñu sukkandikoo ci seen i kàddu ña ngi ko defaree fa nga xam ne moom moo di Sine l'Observateur daal di ci indi ay témoigné ñu fas yéene leen tey ci talaata ji fa nga xam ne moom moo di tribunal grand délit bu ndakaaru ñu dem ca ñaari tari kawteef la fa xew doy na waar benn xale bu jigéen bu am ñaar fukki at ak ñett moom la ñu fekk ci néegam mu dal di euh, faatu loolu mi ngi am démb ci altine ji yem ak euh, ñaar fukki fan ak juróom ci weeru décembre ginnaaw bu ñuy jullee li nga xam ne euh, moo di tisbaar ba pare kenn ci membre famille ba moo ko fekk ci néegam mu dal di faatu ci la ñu alerté ñi nga xam ne ñoom ñoo di police ñu dal di nag jël la nga xam ne moom moo di seenub néew ngir yóbbu ko defal ko autopsie ci ban anam la faatoo. Sénégal daal dinay ñàkkaat nit boo xam ne monument la woon ci réew mii moom moo doon nekkoon moo nekkoon li nga xam ne moo di ministre de l'intérieur ci ay jamono doon wuyoo ci turu général Mamadou Niang moo dirigé woon la commission politique du dialogue national daal dinañuy fësal génn àdduna moom itam ginnaaw euh, ki nga xam ne daal nay génnaat àdduna ci gouvernement bi li nga xam ne moo di jàngoro jàngoroy coronavirus moo ko yóbbu suñu Sunugal 24 di ko jàll képp ko xam ne yaa ngi ci gouvernement bi rawatina ay mbokkam ñu àddu wax ci lu ñeel wàllum presse bi ginnaaw bu njiitum réewum Sénégal àddoo woon jëmale ci lu ni mel ngir nag ñu daal di koy régulariser waat ngir xoolaat euh, naka lañu koy càmbare ba yëpp teguwaat ci yoon tax na euh, ki nga xam ne moo di ancien ministre conseiller di Moustapha Diakhaté àddu wax ci lu ni mel nee na euh, bu dee yëf ya dañu koy defaraat jot na ñu daal di boole lépp defar doo am kumba am ndey kumba amul ndey boobu le bale nañu ko tàmbalee ci buntu la muy sàkku ci nguurug Sénégal njiit njiitum réew mi nga xam ne moom moo ci wax ak ministre bi ñu ko dénk ngir nag ñu dal di taxawalaat code de la presse bu bees ngir ñu mën a dànkaafu ñi nga xam ne ñoom ñoo di presse en ligne yi te itam dal di teg lépp ci yoon ngir mu mën a jaar ci yoon ONG dal nay fësal ab rapport bu mu publier ngir nag ñu dal di fësal sénégalais yi nga xam ne jot nañ leen a faat ca bitim réew ci réew yi nga xam ne ñoo nekkee ca tugal mu mel ni bu ñu sukkandikoo ci boobulee rapport jot nañoo fësal lu tolloog ñaar ñoo xam ne ay sénégalais lañu te ñu faat leen ca tugal ñenn ña dañ leen a taal ñenn ña ñu dal di leen di tiire bal ñeneen ña ca des ñu fekk leen ci seen nekk ñu dal di faatu te bañ defee autopsie dañoo jàpp ne dañu leen a faat na ñu dal ne lim bi nga xam ne moom la ñu faat ci sénégalais yi nekkee ca tugal ci 2020 bi dafa takku par rapport ak yeneen at yi fi jote jàll. ñu dem ci HLM xeex bu métti ba doxoon dem bu diggante marchands ambulants yi ak takk der yi ginnaaw bu ñu leen di ayee ñu dal lal ca boobu leen marché yëf ya mujjoo woon na metti ñu dal di taal ay pono baare yoon ya diggante takk der yi ak marchand ambulant yi am na ci ñoo xam ne sax jot nañ cee jëlee ay gaañu gaañu waaye la ñuy sàkku ci nguurug Sénégal moo di ñu bàyyi leen fa ba ñu jot euh, am leneen loo xam ne wala feneen foo xam ne mën nañ leen fa dugal ndax foofee lu ñu yaakaar ngir faj ki seen soxla li waral tey ci talaata ji ñu xëy ngir mars seen i doléance ngir xeex seen ak ak yelleef ñu wa ci doomu Sénégal bu ñu ko euh, tabbe woon li nga xam ne moom moo di euh, meilleur euh, comé meilleur web comédien de l'année ñu joxe ko ko fa nga xam ne moom moo di ca Côte d'Ivoire daal dinañu koy joxaat foofee beneen mu di meilleur talent de la Teranga 2020 tax na Diaw Ketchup fierté la ci réew mi di Sénégal ba waral ñu daal di koy invité tey fa nga xam ne moom moo di plateau yeewu leen ca TFM mu daal di dikkat ci naka la def ba ñu tab ko jox ko ñaari trophée yooyu yëpp te itam atum 2020 at mu neex la ci moom ndax jox nañ ko ñaari ñaari trophée ba noppi mu dal di ci takk soxna ñu àddu wax ci leneen dellu si ci coow li nga xam ne moo fi aramoon ci atum 2017 te ki nga xam ne moo defoon tentative de meurtre bi ñu ko doon toppee ba tey ñu dal di koy atte lu muy bu ñu moytuwul dinañ ko tëj lu tolloog ñaar fukki atti kaso yoo xam ne dina ko tëdd ci kaso gi la waral ñu dal di koy atte boobule atte bu metti ci am ndoddam bokk na ci acte ba nga xam ne def na ko ginnaaw bu ñu ko doon boolee ak benn waay ngir mu bokk ak moom lekk li nga xam ne moo di bu ñebbe yooyu ca la bañ a bokk ak moom waaja euh, bool bi daal di jàpp na itam 300 000 yi nga xam ne moom la yoroon ci poosam waaja ko sàcc ba waral mu daal di koy jam ay paaka yu bare bare ba waaji mujjee ca ñàkk ba kanam tax na waajo julee bu ñu moytuwul daal di nañuy fësal ab atem ñaar fukki ati kasa yoo xam ne dina ko tëdd ba tax na daal dinay dellu siwaat ca feya na mu ko jamate paaka yaak la waral mu jamat ko ko waaye nee na jamono jam koy jam dafa màndi woon te itam bokk na ci li nga xam ne mi ngi koy réccu ndax moo ko yàqal àddunaam feebaru jibi ama Sénégal kenn ku nekk dugal nga ci sa loxo ba ci faramareen bi nga xam ne moo di Wally Ballago sekk ak Ndiaga Oro ginnaaw bu ñu doon laaj lim bu takk bu tolloog fukki million ki nga xam ne moom moo di seexu Kouyaté njëkkoon caa dugal 7 euh, millions 500 Wally Ballago Seck dal dina yebal kër jibi ama délégation bu takku ngir nag ñu dem jébbal ay waajuram lu tolloog 1 million 500 jàppale koko ngir ñu mën a yóbbu jibi amal ca bitim réew euh, faji ko ba tey ñu des ci mbiru ama bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne yaayam yëkkati na ko ak frère am bi nee nañu xaalis bi nga xam ne moom lañu doon sàkku ci sénégalais yi ngir ñu jàppale ko seen doom jooju xaalis ba mat na ba ëpp te ñi ngi yor kàddu li nga xam ne gërëm di ko gërëmee Sénégal yëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo nekkee ci axlu làmb ji kenn ku ci nekk jóg nga def ci sa doole wala say jéego ngir Djiby Ama seen doom jooju delluwaat ci sagoom dañ ko jeexale ak point covid 19 bu ñu sukkandikoo ci bi ministère de la santé de l'action tey ci talaata ji yem fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre ci tas jot def ñaari nit ñoo dellu si ñàkk seen bakkan dañ koy jeexalee ak point Covid 19 bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi ministère de la santé et de l' sociale amal tey ci talaata ji yem ak ñaar fukki fan ak juróom ci weeru décembre ci tas jot a def téeméeri nit ak fukk ak juróom-ñeent ñoo ci dellu si am doomu jàngoro bi ñaari nit ñàkkaat nañ seen bakkan dooleeku colim ba ñàkkoon seen bakkan ci ñi ñu entré woon ci hôpitaux yi juróom benn fukki nit ak juróom wér nañ ba ñibbi nit bi seen i kër fanweeri nit ak juróom-ñaar ñoo nekk cas grave maanaam réanimation tax na feebar baa ngi wéy di wéyal ay jéegoom ci biir réew mi gën a tiital askan wi kenn ku nekk yaa ngi ci guddi gu bët setagul ñiy sàmmoonteeg wér gu yaramu doom aadama yi lëkkoo ceeg ministère de la santé et de action sociale di sàkku ci askan wi ñu gën a waggar wéyal digle yi bàyyi tere yi ngir ñu mën a xeex mbas mi mu génn ci réew mi yéen ñi nga xam ne yéen ñu doon programme ñaanal leen kenn lu jàmm di leen jox dig daje ëllëg incha allah.